Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charoui ITV, la chaîne d'information, 44 Event la chaîne événementielle, www.charouiinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous.

de Madame la présidente nationale des femmes et ñu Monsieur nous nous présente sur nous, maman Madame Mayni Fatoumata responsable départementale des femmes de Pikine. Nous ngi présenter aussi notre cher responsable monsieur Pape Maman Maman, Gué, coordinateur de Pikine un responsable politique de PDS, M. Souleyman Sall. Nous lui présentons aussi sa son responsable politique

ñu wax tuuti ci jaar-jaaram bu ñu bëggee wax lépp ci Mor Niass jàpp naa ni que ni kon nag war nga ko waaye dañuy wax tuuti rek ci jëmm yi toog Mor li ko dugal ci politique yàlla dafa dogal ni que ni mu nekk un opérateur nekk nag dëkk bu ñuy wax Kédougou di fa liggéey yàlla xar xolam. dugal ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade moo initié Mor Niass ci politique moo ànd ak moom di xeexal Abdoulaye Wade ba Abdoulaye Wade jël nguur mais li ci gën a jaaxal doomu aadama yi Abdoulaye Wade bi mu jëlee nguur gi moom dafa replier ni falu taxul ma doon xeexal Abdoulaye Wade liggéey bi may liggéey daf ma doy sëkk bàyyi Abdoulaye Wade doxal Abdoulaye Wade doxal fukki at ak ñaar yàlla def bu ñàkk nguur Macky Sall ñëw li ko dugalaat ci politique taxaw bi ñu taxawu Abdoulaye Wade moo ko delloowaat ci politique mu àndaat ak waa PDS di xeex nag yàlla def bu féete woon Thiaroye Gare ñun ñu dëkk ci de kaw ñu xam ni que moo ñas mii ñàkk ko wóorul moo tax ñu fexe ba dugg ci de Thiaroye kaw moo ñàkk dem di milité ci Thiaroye Gare kon ñun dañuy ñàkk fayda looloo tax ñu delloo suñu ci Thiaroye Kaw waaye bi nga xamee ni que ni PDS dafa dee ci Thiaroye Kaw kenn tuddatul PDS moom moo xeexal PDS xeexal PDS ba ñu ni dañuy def renouvellement ci biir renouvellement yi ñu ni dañuy jaay carte ñu jaay ay carte moo yàlla dimbali ko mu monté 46 secteurs. taxawal 46 secteurs fii ci Djidah Thiaroye Kaw loolu moom moo tax ñu joxoon ko mu nekk président section PDS ci Djidah Thiaroye Kaw ci liggéeyal nag liggéey bu mucc ayib waaye benn parti mosu ko fekk ci liggéey lépp lu mu def ci biir Djidah Thiaroye ci ñaxam la ko defee kon moom gàcce kàllaama ñu ngi lay gërëm waaye loolu taxul moo bàyyi moo ñëw nag ci jigéen bi xam ni que ni nous sommes issus dans une commune très très très très social muy Djidah Thiaroye ñu ko ni dinaa jël jigéen ñi organiser leen defal leen ay formation jël ci li ma di wërsëgal jox leen pour ñu ànd liggéey mu defal leen formation pare ci formation yi yëkkati chèque 3 millions dagal jigéen ñi ngi leen liggéey waaye liñ ci détaillé yow xam nañ bu baax kan mooy Mor Niass bi ñu demee ba nga xam ne ni que ni xam nañ ni que ni ñii xamuñu valeur Mor Niass ñun dañoo taxaw nag di ko woo jot na nag léegi nag pour nga wane li nga doon fii ñu ci détaillé yow loolu moom moo waral que ni le président Mor Niass ak jigéenam yi yaa ngi ak stafam bi ñu taxawal mouvement bu ñu naan que ni mouvement dox ci. askan wi may wax ni que ni waa PDS dañoo desee xam kat mooy Mor Niass waaye ñun ci détaillé loo xam nañ bu baax kat ba nga xamee ni que xam nañ ni que ni ñii xamuñu ko doon Mor Niass ñun dañoo taxaw nag di ko woo jot na nag léegi nag pour nga wane li nga doon fii ci détaillé kaw loolu moom moo waral que ni le président Mor Niass. ak jigéenam yi yànj yi ak star fam bi ñu taxawal mouvement bu ñu naan te ni mouvement dox ci soxlay askan wi bi ñu taxawalee mouvement bi ba pare mu ni nag vision bu benn kenn ku dul ni que ni nag le président Diakhar Faye ak le président Ousmane Sonko ak le monsieur docteur Cheikh loolu moo moo bi mu waxtaanee ak ñëpp ni ko nag ñun daal fi ñu gis mooy que ñu ñëw ànd ak nos frères yi nga xam ne ni ñoo nekk di déclaré kaw di doxalal Pastef doxalal bu mucc ànd ak ñoom liggéeyal le président Diakhar Faye ndaxte nag président mënuñu ko yónni yàkkamti ko ba pare nag duñ ko jox nag loo xam ne ni ngeen moom lay duggee marché li président war a duggee marché nag mooy que ni nag incha allah rabi au soir du 17 novembre ñu jox ko le maximum le maximum le maximum de députés au niveau de l'Assemblée pour que mu mën a doxal kon loolu moom moo ñu indi tey gars yi ñëw waxtaan ak moom moom gis indi ay jigéenam la gars yi waxtaan ak ñoom ay jigéenam ànd nañ ci estafam ànd nañ ci kon nag le président moom la suñu lépp la bu ko neexoon nag kii am na ay leader ay leader ay ndax waxtaan bu baax la ñëpp ñu waaye kii seetaan ci benn yoon. ku ñu jàpp ku ñu fonk la moom ba ngeen ñaan ko te nag leer wonam ko te yàlla leer tàmm ci dara ji suñu maam asalaamaaleykum mbooloo mi

yàgg nañu muy monsieur le maire Alla nga xam ne yàgg na ma jox ko di ko sant baax a baax waaye nag tey ci politique ci diggante nit ak nit su fekkoonte ne bët laa man maay li ci ñuul dafa am ku ci weer ñu koy wax Alassane Ba ngeen jéggal ma su ma amee benn bu ma fàtte rek ngeen xam ni doomu aadama moom moo tax lim des fois xaw a day waar mais maa ngi nuyu présidente des femmes mu jël nuyoo bi tegal ko ci loxo jigéen ñëpp nuyu le chef d'arrondissement di nuyu Ba bu ko defee li ma fi indi nag tey ñun mooy que dafa am loo xam nii ñun. suñu mouvement dox ci soxlay askan wi soo nee mouvement dox ci soxlay askan wi nag dafa war a fekk lépp loo xam ne soxlay askan wi la daf war a soxal mu am ku si ku si nekk muy quoi du bees bii jóg ci di jëmal ak jubbanti ak def lépp loo xam ni njëriñu réew mi la loolu da ko ca nekk da ko ca war a fekk lépp lu mu aajoo ma jox ko moo tax bis ni tey man mouvement euh, dox ci soxlay askan màngo boo xam ne yaa ngi ci man jël nañ tey ci sama kàddu ni bis ni tey ànd nañ ak coalition Pastef ci seen blind faith. That inshallah. seen engagement seen bëgg réew moo leen moo tax man su ma ci dugg foofu dama xam léegi ci liggéey loo xam ne ñii demee réew mi rek mu leen ñoom ñii seen poche ñun la kon dinaa ci ànd ak su ne weex na dama naan taal su ne ñuul na dama naan

le président Cheikh Tidiane Dièye au niveau départemental muy madame Sow nekk coordonnatrice départementale di nuyu monsieur Mor Niass mi yor mouvement ak suñu yaayu jekki yi mu dox di nuyu monsieur Bawal bi nga xam ne nii moom moo fi teewal Mame Boye Diao mu ñëw rejoindre coalition bi di nuyu suñu coordonnateur adjoint nekk aussi le directeur de campagne nekk aussi un homme infatigable au niveau de Djidah Thiaroye Kao muy Ababacar Faye le vice-coordinateur de la commune de Djidah Thiaroye euh, de Pastef mu nekk ku jàmbaare ñu ngi koy sant gërëm parce que depuis que notre candidature est portée jusqu'à maintenant nelawul yendalul fanaanul ñu ngi nuyu aussi nous nga xam les sympathisants du président Ousmane Sonko bokk fële ca Thiaroye Gare bokk ak liggéey bi le coordinateur Pape Gueye bu Pastef bu Thiaroye Gare euh, damay wax ne dafa am loo xam ni dañ ko tàmmee woon fii politique muy nan la ñuy def bu élection ñëwee li ñuy njëkk a wax mooy dajale suñu yaay yi jox leen ay ñaar téeméer ak ñett téeméer loolu dafa woon ni président Ousmane Sonko dafa am loo xam ne nii da doon nelaw ci ñun mu ñëw yee ko muy jub jubal jubanti jub jubal jubanti dama koy répété waat c'est très important dañ daan jàpp suñu yaay yem leen ci ay kaar jox leen ay mille francs ñu dem voter ak nit pendant dañ daan jaayee seen carte yi junni boobu noonu boo ko calculé mois bu nekk fukk juróom la xam nga fukki dërëm léegi nag dañoo toll ci jamono joo xam ne nii kaay leen ngeen fal ma nit ñi ñoo yëkkati seen xaalis di tànn ki nga xam ne ay loxoom set na ñu fal ko ñun de waxuñu ne set nañ mais président Ousmane Sonko moo ñu tànn pendant parmi des milliers de jeunes ci Sénégal boole ñu ci département de mu nekk département boo xam ne am na taxawaayu bool ci ñetti at yi nga xam Senegal Sénégal traversé na des moments douloureux sànq suñu nijaay suñu papa suñu jëwri dafa am lu wax lu am solo muy mohammed Sila suñu cousin la ñu koy tëb fi lañu fekk mais loolu yëpp dinañ ko préparer ndax dafa am lu président Ousmane Sonko indi bokk président Bassirou Diomaye Diakhar fay muy fi jëlé Sénégal ak fi ko bëgg yow amna téré bo gis ngeen ñu dëggu ko fan ko ci askan muy référentiel bi nga la Sénégal horizon 2050 mais premier plan quinquennal bu horizon 2025 2029 ñu teg ci ñeenti bi gouvernance et engagement africain concerne nañu mais Nous point dafa mu euh, mu décentralisation et développement territorial

président Mor Niass ci loolu la nekk di autofinancer femmes yi pour ñuy liggéey lépp lu ñu dem di ko wuti Dakar wala feneen ñu koy am fii loolu noonu mu nekk benn doom boo xam ne arrangé nañu point 3 bi mu daal di nekk capital humain képp koo xam ne am na nit ñu xereñ am nit ñoo xam mën nañ liggéey ak capital humain et justice sociale justice sociale mooy dafa am benn slogan bu président Ousmane Sonko doon wax lu ñëpp bokk dafa jot ñëpp jot ci.

ba tey jii nii sax waroon nañoo dem ci tool yi mais ndaje leen yi moo tax mënuñ ci dem ñun dañ doon bay kànja di bay ñebe di bay gerte loolu boo gisee ñu koy def dañoo bëggoon décomplexé doomu aadama parce que ñun ñu nekk ci saami ci bokk passif daan dem ci tool yi amul kenn ku ci xam tool mais tey dañoo bëgg yóbbu Sénégal foo xam ne nii maanaam dem tool ak dem jàngi école ñoom ñoo yem ci nit ñi ndax ki nekk ci tool yi dana am lu mu mën a yóbbu waajuram képp koo xam ne nii aussi yaa ngi ci école ba li ngay prétendre mooy boo xoolee États-Unis wala nga dem France wala feneen ak feneen ñi ñu jël ay référence ñu noonu ñëpp boo xoolee ñu fa ëpp xaalis du ñu ay ñoo xam ne ni ay bureaucrate lañ maanaam dañoo jàng ba am xam-xam déedéet mais baykat yi ak sàmmkat yi ñoo fa ëpp xaalis leneen li may wax aussi mooy élection yi dafa nekk élection yoo xam ni enjeu yu crucial la mu nekk élection yoo xam ni am importance la parce que Sénégal dañoo jël oto bi daal di koy jox ñoom président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais chauffeur lañu amatul chauffeur bi mooy ñoo war a teew assemblée pour mën a voté bi nga bi li nga xam ne ni moom la bëgg askanam léegi nag loolu ñun ñooy xool ndax bëgg nañ li nga xam ne nii moom la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye am ci réew moom moom la bëgg ñun nan la ñuy def ba may ko wa ilaa ñu bàyyi li nga xam ne nii ñun moom la ñuy bañ mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon jàpp nañ ñu di tëj indi fi Covid 19 lekk xaalis askan yu jàpp suñu doom rey leen tëj leen ci kaso bi est ce que ñoom dañ leen a war a bàyyi ñu dem alal di ñu lekkoon pour ñu bokk ko il faut que assemblée bi mën a taxaw ñu am une majorité écrasante réew mi ñu teg ko ci yoon jub jubal jubal yaakaar naa ku gis sorte bi président def réew nga war a xam ne kii responsable te kenn du ko dicté lu muy def man daal loolu laa bëggoon a wax di lancer aussi un appel solennel muy kàddu yoo xam ne nii kàddu ñaax suñu frère yi yéen ñu toog si ginnaaw yéen ñi nga xam ne nii ay góor yàlla ngeen 6 heures du matin lañ gis ngeen di xëy lu nekk ñu koy teg seen def doomu banlieue dafa am beneen xar-xar kanam bu mu war a te ñun ci dynamique boobu lañ nekk moo tax tey bi ñu sasee ne ñu yéen da ngeen di bokk ci juróom yi représenté département de Pikine ñun dañ ci am fierté benn fierté kese dañ ci am muy représenté dignement la commune de Djiddah Thiaroye Kao ak à travers ces jeunes là ñi nga xam ne ñooy xëy gàddu seen sareet di wuti lu ñu yóbbu seen kër ñoom ñooy xëy nekk ci seen jakartaay di wuti ñu yóbbu seen kër ñun ñooñu la teewal seen mbindaan lañ seen mbindaan lañ encore une fois koy wax un député c'est un serviteur du peuple c'est un porte-parole te lépp loo xam ne nii laaj na ko wala def nañ ko bu ñu député kenn député askan wi la doon ba keroog

ci la nekk jub jubal jubal li nekk ci moom mu nekk jullit yaakaar naa moo tax bu ñëw rejoindre maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant assistance bi yëpp di leen wax di joxe ay au soir di septembre médias Media, DigiClick, agence de communication, Charoy ITV, e la chaîne d'information, 44 Event Pro, la chaîne événementielle, www.charoyinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous!